autorité bi nga xam ne mooy autorité de régulation muy gendarme bi nga xamante ne bii moom moo war a àtte diggante consommateur yi ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy opérateur téléphone yi euh, dafa am ay tëralin yoo xam ne gis na ne opérateur bi nga xam ne moom mooy Orange Sonatel respecté wu ko ñu teg ko ay daan loolu nag ñun la ñuy xaar ci autorité de régulation ndax autorité da ngaa war a jël say responsabilité jël say responsabilité mooy yow lañ fi teg pour nga respecté loo. Euh, euh, opérateurs yi yoon wi nga xam ne moom la état du Sénégal tëral ku ko ci bañ a respecté da nga ko war a jaarale yoon mais waroo toog di seetaan kon suñ gisee ne tey jii ARTP def na loolu ñun dañ ciy kontaan benn. ñaareel ba gis nañ ne tamit contrôlé nañ sur le terrain gis ne opérateurs yi li nga xam ne moom la ñu waroon a def ak li ñuy def bokkul donc am na ay luux mbooc ak ay luuxoor yu bari yu nekk ci biir yoo xam ne commencé nañ ko feeñal kon yaakaar nañ ne ñi ngi xaar aussi ARTP mu continuer contrôle bi nga xam ne. waxoon nañ ne dinañ ko def pour xam réellement ñoom itam ñaata minutes de communication la ñuy jaay ndax loolu amoon na coow lu rëy loo xam ne euh, euh, coopérateurs yi dañ bañoon ko leen contrôler te kon yaakaar nañ ne tey ji war nañ leen mën a contrôler pour xam réellement li nga xam ne ñu ngi koy def ci biir réew mi ak ndax jaar na yoon wala jaaru yoon. ci euh, yat yi nga xamante ne bi moom la yoon wax mooy 3 pour cent chiffre d'affaires yéen a ngi fàttali ko am na quelques années ci ginnaaw na. Alamande Sonatel 3 milliards parce que boobu temps foofu la chiffre d'affaires am tolloon euh, fi nekk nii def Alamande bi ñu ko def 3 pour cent chiffre d'affaires la ba tey mais 13 milliards lay tombeel parce que boo xoolee li nga xam ne moom lay am ci Sénégal rek sax lañ calculer calculer wuñ ko ci li nga xam ne moom lay am ci sous-région bi parce que ci sous-région bi 816 milliards lay doon donc bu boobaan bu fekkoon ne ci lañ ko appliquer 24 milliards lay doon. ah te appliqué wuñ ko ci lool kon loolu wane na ne euh, ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy autorité de régulation ñi ngi def seen liggéey pour que vraiment képp koo xam ne da ngaa nekk di opérer fii ci biir réew mi nga respecté yoon li ñu wax. kontaan nañ lool pourquoi parce que su fekkee ne borom ku néew doole day xeex ak ku am doole. dañoo war a atte mu jaar yoon mais bu fekkee atte bi jaarul yoon kii am doole toujours mooy gagné ci kaw consomateur bi te loolu lañ daan gis bu njëkk kon gis nañ ne lii bu commencé nii su continuer dina tax ba opérateur yi gën a respecté consommateur yi.